combat le 6 novembre mooy dàq ci at bi ak at yi ñëwoon la ak yi passé a bëre xeex loo xamante ne ñu ñëw ay cinq minutes yi noonu ku affronté Lac de Guiers 2 xeex ak ñoom ñu reculé xeex ak Ama Baldé mu reculé xeex ak ñëpp ah bu nee la di nga xeex ak Siteu kañ Siteu kañ dama pare man li ma pare moom na ko pare rek combat bi nu mu mel ci moom ba ne ba ne saay naan dem naa leen wax man loolu laa bu la neexee bu def dara dinaa mbokk yi Kajoor production ànd ak Ibrahima Diop ñoo woote ginnaaw bi ñu tëggee combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba pare nee nañu le 16 octobre 2022 ci arène nationale la ñu ubbee seen saison ci diggante armée bu benn baraak ak mbay guy gi bawol bawol bu saf xorom bi lamb ji nag en live lay doon pay view ci seen affiche point com waa Sénégal 1800 francs dong la diaspora bi 4,99 euros seen affiche point com le roi en pay per view au Sénégal rafet na lii rafet na lii rafet na xaadim Ndiaye ci kaw ba ci suuf abima bi allah Pape Abdou taalibe Cheikh na Cheikh Sad Pape Abdou Fall taalibe bu wax xayartu. nga xam ne boolewul dara ak i wax. moom Pape Abdou Fall. waaw moo la defal moo la solal lii. jëf lu rëy wax lu tuuti. mooy Pape Abdou Fall waaw. muy nit muy as gor. ñu ngi koy nuyu prési waaw di ñaanal këram a ngi nii ci ginnaaw. tey maa ngi nii ci mamel xanaa da ngaa jaar ca kër ga. Pape sama digganteeg moom. samedi ak dimanche da benn bés doxu ci ndax euh, dama koy ñaanal yàlla rek yàlla jàppale ko jàppale ay soxnaam jàppale ak njabootam yàlla teg ci loxo ci barke Cheikh na Cheikh Saad bi ci barke Cheikhul Xaadimu Rasuul mu ñu bokk yaakaar ndax Pape Abdou Fall day taalibe Cheikh na Cheikh Saad bi man may taalibe Serigne Touba Pape Abdou Fall bëgg Serigne Touba lool man mu bëgg Cheikh Saad bi lool yàlla boolewaat ñu ñu daje. muy sama mag di sama frère di sama lépp. Mm. di nuyu Pape Abdou la mag yow. di sama frère di sama lépp xam nga yéen ay seytaane ngeen. non damay laaj ndax moo la mag. di ngeen géem a dugg non xam nga seytaane baaxul. non pas seytaane ma laaj ndax. moo la mag li may wax nii ci Pape Abdou Fall xanaa dara neexul. Pape Abdou sama waay. Pape Abdou ah Pape Abdou Fall. Mhm. man nit ku baax la. moom laa tuddee kooku jàmbaar la mënoo maa jaxase ak moom waxal say wax rek nag. moom laa ko tuddee def leen ni ko yàlla def mu noppal leen su ngeen ko deful ni ko yàlla def mu sonal leen te xuloo moom da nga koo bëgg lool lool lool mais tey dañ laa fekk fi nga xam moom mooy mamel fii kër Serigne Cissé defe naa lañ la fekk wala du noonu. waaw yaa ngi ci buntu këram toog. waaw jërëjëf euh, Babacar ginnaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur sant xaadim rasul bu baax sant suma xarit suma lépp muy Pape Abdou Fall su ma jugee ci Pape Abdou Fall mm. ñëwaat ci suma benn xarit. ci sama benn kilifa. nga xam ni maak moom jusqu'à la mort la. muy kan Matar Ba. ancien ministre de sports. bu la neexee. ndax waaw non ay ay saytaane ngeen. Eh, waaye xaadim nag xanaa jàngoo tubaab. yow su ma nee Matar Ba loo ci indi ay ay ancien ministre des sports. loolu dafa aay li ma wax. xam nga Sénégal li moo ko yàq. li ma wax daa aay Sénégal boo gisee du avancé. waaw yu mel nii rek ko yàq. waaw mais yow nekkoo ancien lutteur yow. toujours yow ancien lutteur déglu rek. toujours lu tax la lu tax bu may bu may interroger laaj ne ma Khadim Ndiaye maanaam euh, contexte bi maanaam question bi ñëwut noonu da nga ko yàkkamti woon lan moo man a Khadim na xoolal man mënumaa booleeg Matar Ba mataar Ba président Macky Sall la ko faloon du yow maa yaa ko fal du man décret ñëw wàcce ko est-ce que yaa ngi dégg lu ma lay wax ñun ñëpp Sénégal lañ nekk Matar Ba ñëw mënuñoo jaxase ak moom lu naa saa yu nee nii nga ne yaag Lamine ni Matar Ba naa bàyyil yooyu ngay wax bàyyil jaxase man bu ci dugal Lamine de bu ci dugal Lamine de ah, kon man a booleeg Matar ba bu ci dugal Lamine daal waaw ba tey d'accord la waaw kon waxal Sénégal xam nga lu ko yàq te nga wax ci gàmmug sëñ Cissé bordub sëñ Cissé bi dama ñor xam nga lu yàq Sénégal suñu Sénégal gi lu koy tardel mooy dañuy dañuy gërëm ki xam bu taal bi fàtte ki taxani toujours loolu yàq Sénégal hmm. waaw ñàkk xam di wax toujours nit da koy xam ba pare xamoo dara ci li nga wax ba pare di wax Matar Ba sport bii nekk na ci ba mu ci jógee billaahi wallaahi tallaahi defu ci lu ñaaw waxu ci lu ñaaw ba koroog ñuy sàngoo suuf kenn du dégg Matar Ba yëkkati benn baat bu ñaaw teg ko ndax kooku dañ ko yar même ciy nekk jàmm dong la fi nekk. dañ ko ñaanal jàmm saa su nekk nag. boo ko ñaanal yàlla dina ko defal ndax xale boobu jàmm dong lay jàmm dong gis naa nag fen yi al yi. nga xam ni gëmuñu yàlla gëmuñu yonant ñooñu ñooy ñan a tooñ kenn ñëw rek ñu xalamal la yor ak guitare la ñu rek ngalam ku fi ñu non loo bëgg yow dama ne yow dama lay laaj yow yow xaarim loo bëgg yow dama ne nit da ngay gore mais yow yow yow yow Tuubaa Mbàkke dama lay dóor waaw dóor ma loo bëgg yow wallaahi tallaahi dama lay dóor dóoral loo bëgg dama ne toq si ngalam yi lañ war a bàyyi. toq si ngalam yi bàyyil ñooñu te nga wax sa bopp. xam nga ayil jàmbur nit du tooñ. gis nga suñu milieu lamb bi ah. suñu milieu lamb bi. mais bàyyil ñooñu rek ñu dund liñ gëm yow nga du gëm dund li nga gëm. man li ma gëm la yow yow yaa du yow yaa ma ko wax yow. kon kon on continue. man Matar Ba. waaw dama ciy wax ba ma gis ku ma taxaw ne ma xaadim lu tax nga ci wax la nga wax ci Ba nag. waaw dama ciy wax ba ba ni saa yi ndax gor laa ànd man man du xaw xaw ma ay àndu cof man damay ànd ak yow damay ànd ak yow ba koo bout ñàkk xam di wax ak i ñaan yu ànd ak pexe tey ku nekk tey génne saw làmmiñ ratatatatatatatat mel ni géej ju sàmbaraax Matar Ba yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin amiin yàlla na yàlla. Matar Ba produit yi Macky Sall la. loolu am na. produit yi Macky Sall la. ma Matar Ba transhumé wul ci Macky Sall de. Macky Sall ko yar ñu bokk seen Fatick. transhumé wul de. xanaa léegi da ngay man. ku ma xam. yow ma mosoo ci ku transhumé ku ñu formé ku ñu formé Matar Ba day gor day gor gor ci ndey gor ci baay gor ci baay gor ci ndey. da wax ci li la doy sëg diggante Reug Reug ak ak mi la doyub tool mat lam ngoon mat lam xëy te nga cee wax Sa Thiès mi dëkk géej way di nuyu As Ndaw Ndoukoumane Babacar. Sa Thiès Reug Reug. waaw mbokk internet yi ngeen baal ma. wala te sax Reug Reug moomu balaa may sori sax. ñu ngi koy féliciter encore une fois ndax ki démb gis nañ combat am vraiment mu gagné ko gagné bu set wecc combat bu metti mais mu géré ko gagné adversaire am di féliciter tamit Serigne Dia Bombardier moom tamit avant Reug Reug moom it gagné na adversaire am ci MMA bi ñu ngi leen ñu ngi leen di féliciter ñoom ñaar ñëpp di ay doomi Sénégal. waaw loolu yàlla yàlla loolu la def mat Bombardier moo njëkk génn yàlla may ko ndam suñu doom ñëw génn yàlla may ko ndam muy Reug Reug lépp génnul Sénégal lépp dama ne Reug Reug ak Bombardier ñooy seul mbër boo xamante ni Sénégal def nañ ci sport loo xamante ni amul benn mbër buy nekk Sénégal bu ko def loolu nañ leen ko nangul Reug Reug ak Bombardier ñooy mbër boo xamante ni fii ci Sénégal ci sport ci wàllu sport yi nga xamante ni sport asiatique yeneen yi asiatique yeeg yeneen ak ak lit yi mm. def nañ ci loo xamante ni amul benn mbër boo xamante ne yaa ngi taxaw Sénégal bu ko def loolu nañ leen ko nangul chance bu leen ko yàlla defal la mhm. yàlla na leen jik mhm. yaa ngi may naan sànq am nga lu la mat ab tool waaw loolu day ñëpp nit ñi ah, koy wax de barke Serigne Touba Mbacké mhm. ak guddi mawlu gii sa sa Thiès terewuma nelaw barke Serigne Touba Mbacké Xaadim wax ji saa su ne moom ngay wax tey nga xam ne lamb daa garaaw de dégguli la yow yaa ne ma am nga lu la mat mbubb ak tool sa Thiès terewuma nelaw damay nelaw ba yandoor samay activité ma di ko def Sa du tax may taxaw di def stress di xalaat nañ lañ war a bëree ndax ki ma yor dama koo xam ki ma yor daa ëppi qualité daa ëpp doole daa dàq bëri wala dafa gën a doon gune yàllaa xam ah yow mi ko yor nga ne da nga koo xam ba pare ne yàllaa xam te ngàpp yàlla yàlla musal ci sa gémmiñ ngappuj yàlla nañu yàlla musal ci sa gémmiñ ci lu la neex wax dama neex Babacar amul muskila Babacar xam nga yi ngay def nii yëpp c'est de euh, xam nga mais man mënuma buraaye de man ab kaw kaw laa gu nekk kaw laa gu yaroo Ndakaaru bàyyi ci xel dama ne lamb tey mënuma jabolise man c'est impossible da ngay sonal sax sa bopp yow lamb bu doon <laughs> waaw man la wàcce naa ko ah, waaw loolu am li nekk gis nga entouru lamb waaw dafa sakkare ba nga xamante ni ku ci yàlla dimbalewul sax ñu nelawal la ah man de xaw ma waaw. man daam ku ñuy waaj a ne lool ci combat man lamb. milieu lamb laa la wax. gis nga yéen ngi wax ministre bu bees bi. nu mu tudd. ministre bu bees bi. kanam xam nga Daouda Diatara xaw ma Daouda Diatara xam nga. Yankhoba Diatara mooy ministre des sports bu bees bi. ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. mais dama dugg na ci milieu boo xamante ni su amul conseil tuuti. waaw dina metti lool ci moom. ndax milieu làmb gis nga ma ba mii lépp lu ko mënti dimbale ak teeyam ak tekkam ak dalam ak respecté ak respecté doomu aadama ak boole ak fédéré xam nga ndax Matar ba bul fàtte ni sportif la woon doo doon nawetaan te yàlla di ko omat ba jox ko bopp sport bi mu di ñu omatal ba indi ñu coupe du Afrique ñu jëm coupe du monde di ñaanal jour yàlla na leen yàlla defal jàmm xam nga mais dama lay wax ni ñun. terewuñoo nelaw te Sa Thiès Reug bu ñu fàtte ni Sa dañ koy jox cër comme ni ñu joxee yeneen bëri cër mais ba léegi déggoo ma ne man Sa Thiès Reug nii la koy def. dama ne Papa Sow. waaw loolu combat bu neex sax boo xamante ni euh, dañ ciy ñaanal promoteur bi muy suur ndax Siteu c'est un grand champion. Pape Sow Pape euh, Papa Sow c'est un grand champion Pape du Fall tëggoon ko. la ca xew gis ngeen ko yàlla def tey jii tamit beneen frère Pape Dufal tëgg ko muy Mansour doom père ba maa ngi koy nuyu en passage di ñaan yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin di ñaanal papas di ñaanal Siteu ak Reug Reug sama doom yàlla may leen ndox combat yu sedd guy ba mel ni galaas bu am meew. kan ak kan waaw yàlla ma seen combat yi. Hmm. yàlla na gën a yomb ci seen i combat yi ñu mës a ci année bi yëpp ci barke sëñ Babacar Si bii ak Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa ci barkeb sama turandoo Xaadimu Rasuul ndax samay doom lañ. Balla gay 2 booy Niang. ah cappaacoli gi muy Boy Niang gis naa ko tuuba waaw di ko ziare ci màggal gi muy muy muy joxe ndox ci biir màggal gi foofu muy joxe ndox. taalibe yi di ci di ñaan sama xol di ci guy. Hmm. ndax man aw lu bis Sëñ Touba képp ku ma ci gis nga ci sonn rek day mel ni man ko ko defal. digganteem ak Balla laa wax. waaw di wax ni Boy Niang ñun suñu doom la. Ah. sa doom la yow. man sama doom la ndax li tax man la sama doom la papaam ak yaayam xamante nañ bu baax xam nga ñu xamante bu baax mais mi ngi bëre ndaanaan fëkk tëdd boo xamante ni muy Balla Gaye. Hmm. Balla Gaye képp kuñ ko jox. Hmm. waratoo tëdd di yàndoor. Hmm. waaw ndax mbër la moo xamante ni ndaanaan kudd faddi leen la. waaw moom laa wax ni. tey waa waaye amel nañ ko njukkal. ndax tax li tax waa Géejawaay amal ko njukkal ci moromam moo ci njëkk a dégg roi des kon loolu bokk na ci ay valeur yu ñuy ñawe nawe nit. Mhm. xam nga mhm. man boo gisee mënatuma sawar ci Balla <coughs> di ci wax ndax am na ñu ko jegee ñoo xamante ne ay dof mhm. yoo xamante ni seen bopp yi. te nga wax rek te bañ fee traité kenn dof xaar rek dafa am moo yoo xam ne day rëy quoi nga di ko traité nit comme comme sa morom quoi nit nit bu ko traité dof quoi waaw da nga may déglu traité moo kenn dof mais su fekkee ne ay nit dañu seq jàmm di wax muy neex di kafante di ree nit ñi di ci gis seen bopp waroo dugg ci ay vie privée ci ay wàllu jabar rek ay wàllu nangam xam nga loolu après ngeen ngeen gérer ngeen gérer ñun waxuñu fa ñun ci cadre sport laa bëgg ñu wax quoi am na yoo xam ne ñun personnellement man vraiment gënuma quoi nañ wax ci cadre sport dooma dooma tàllal sa di ma wax loolu ma war a wax man non damay bañ xam nga am nga ay wane man waaw yaa wane mais ci vie wane ma ci gratuit da ngay wane ay wànq ngeen <laughs> waaw. léegi daal. ñooy wànq yi léegi. waaw Lamine moom. waaw xale bu loxoom set la moom. waaw ndax damaa dem këram. jaxasoo famille. looloo tax ma jël doom tuddee ko ko. waaw nit ku xale xale la bu loxoom set. loolu moom ñëpp ko wax yàlla na ko yàlla lafal cat. te may ko fanu gudd ak wér. dégg naa sax am na ñu koy géem a kar. waaye ku ko kar man maa koy baare. yàllaa fi nekkal ñëpp rek. kar kar wa moom fii moom. waaw kenn mënu fee kar kenn. yàllaa fi nekkal ñëpp xam naa gis nga senegal gis nga Sénégal gis nga Sénégal gii. <laughs> man sama loxo xam naa daa tilim nga. Babacar Babacar. waaw. sa tur yi dafa màgg Serigne Babacar lañ la tuddee. ah damaa ci ci interview yëpp ay yow yow yow yow ci armée sax bu ngeen leen mënoon wane wane. xaadim astaghfirullah xaadim rafet waaye s'il vous plaît. yéen nu ngeen amee bii rek. rek yow tamit non non non déedéet déedéet. accident ngeen wane déedéet rek baax non non non non na rafet na rafet na dëgg rek laay wax de. wallaay na rafet ay nit ñuy seetaan nag sans farce barke alxuraan ay nit ñuy seetaan. mais soo a yor ñaari Ndiaye doole ma nga ci. ak sama sama kàddu gi waaw moom xëy na yàlla ku nekk wërsëgum ci da am ci ko mu jaarale ne dafay diir quoi dafay diis day diis. su ma waxee man dama bëgg ñi lay seetaan mhm. buñ la xoolee xam ne Khadim mi di wax njaay Ndiaye quelqu'un la bi nga xam ne nii personnalité beeg lépp a ngi fi quoi mais am na moo yoo xam ne bu génnee day dangereux quoi. kon daal man dama da ngaa jàpp ne dama mandi. non waxuma la astaghfirullah ay waay Khadim. da ngay Balla Gaye de Boy Niang koo faral. kan ci. Balla ak Boy Niang koo faral. su ma neexee ni ñoom ñaar ñëpp. Ah. su ma neexee mën naa ni ñoom ñaar ñëpp. Lamine nee na nga wax lu leer. waaw dama ne su ma neexee ne ñoom ñaar ñëpp. Lamine nee na nga wala Lamine sa rak doom jëlee na nga wax lu leer. ñoom ñaar kii Pikine lay défendre. kii géej waay lay défendre. muy combat bu am solo nag ci Boy Niang. foo far yow. man caaru géej laa far. man du ma bañeel. combat boobu foo far du ma bañeel kenn. Ah, da ngaa neutre quoi. waaw du ma wàllu bañeel ki am na fu ma far nag. ci combat bi waaw. mais ci kanam lañ koy fe ci kanam lañ wax. géejewaay nga far. dama ne du ma wàllu bañeel kenn. wala Pikine nga far. du ma wàllu bañeel kenn. Lamine dana ma Balla nga faral. kooku xalaatam la. Boy Niang sama doom la. Boy Niang sama doom la papaam du ko xanaa xamul man ak ñoom Max ak ñoom ñoom ak ñoom Moussaoui Diouf ñoo doon ànd dem ay mbopat ñu nekk samay grand. man du ma complexe de du ma complexe mais combat bi dama ci gis enjeu boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp mën nañ ci avantage bi Boy Niang xale la. Balla Gaye moo ko xaw a féete mag mais du mag. luy avantage su Boy Niang ci bi. mooy mu taxaw jël ay responsabilités am bëgg a diriger combat bi. maanaam mu diriger Balla. waaw booy Niang moo war a toll foofu. nit day am combat yoo xam boo ko amee la force qui élimine la technique. Hmm. oui la force qui élimine la technique. ku force foofu. xam nga bu ndaw buñ bu amee ku féete mag rek. waaw dañ naan dañ naan dañ naan booy ñaam mooy mooy moo yor force mais di nga gis mag moo xamante ni bàyyil boppam ëpp am 45 ans wala 30 45 ans wala 40 ans ëpp booy bi am 25 ans doole ndax hygiène de vie la. mais yow daal da nga koo bëgg a wax ne bés ba kon bu ñëwee bu mu déglu Balla daal. non bu bëggee am lu muy sóor ci Balla rek. waaw ñàkk na combat bi. Hmm. man waaw bu amee lu muy calcul ci Balla Boy Niang su amee lu muy calcul hmm. te Boy Niang nag war na toll ci làmb foo xamante ni sax su amatee mbër mu muy calcul hmm. xam nga wax dëgg yàlla dañ ko war a bàyyi loo làmb ci quoi xale la intelligent na mën na bëre te yor na gabarit bi mais day dajeeg ndaanaan boo xamante ni <coughs> mooy tax bal mooy tax tey Boy Niang am coow ba koroog làmb ji di jeex. maanaam fii lay jaar am coow pour ba ba carrière am di waaw ndax lu tax. ci génération booy ñaa kenn rek moo ci moo moo ciy doog bëri wàlla muy moom. am na yàlla may na ko loolu de moom. lu mu liggéey la quoi ba yegg sa. chance boobu ko yàlla may. da ko war a exploiter. kenn xamul ne chance boobu yàlla da ko cee jox pour mu am ci ndam wala da ko cee jox pour mu am ci échec yàlla rek xam moo tax moom ci loolu la war a sukkandiku tey ba war ñëw ba Balla Gaye di bëri Yékini ci génération indil ko la mu ko indil. audace ba quoi audace ba mu ci am. jàpp ni kii waxoon naa ni kii bu ma dajee moom dama koy daan. su booy ñaa indee lool rek day combat Yékini Balla Gaye bi day ñëwaat. foofu laa koy teg quoi di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. am na solo sunu ñuy fàttali ñuy seetaan nag ne sunu waay nga. waaw non man sunu père nga suñu lépp nga moo tax nag dañuy kaf ak yow di rey ak moo tax sa des fois ngeen di dégg yéen mooy mais xaadim moom bu caaxaan jeexee dëgg des wax dëgg yàlla san problème la quoi sans façon la quoi. dama ñëw ci dañ la koy seere dama ñëw ci bésu man sama noon sax damay ñaan yàlla di guddal fanam. waaw addina ndax laaj ma lu tax. lu tax Serigne Touba lañ ma tuddee. su fekkee ni am naa virgule lu may lu may dencal nit mm-hmm. wala lu may jàppal nit ci lu bon mm-hmm. ah yàlla na murid yëpp dugg àjjana ma dugg sawara loolu leer na kontaan naa ci yow waaw man kontaan naa di la sant lamin jaajëf di sant Babacar di sant Jibi di sant population Caaroy géej yëpp di wax ni réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm Matar Ba yàlla na ko yàlla defal jàmm Pape Abdou Fall As Ndaw Ndoukoumane mhm. Maître El Hadj Diouf ndax ñooñu samay xaritu bopp lañ quoi ñu ma cof waaw dañ maa téye bu dëgër ñu ma yàlla na leen yàlla defal jàmm jaajëf sëñ merci waaw